seen cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Sey borom De di fajkat cosaan booy jëfandikoo gantiax ngeen mën ko fekk ca Dakar Touba Kaolack Thiès wala Sakhindar ngeen ko jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 Moi, len don may sketch Ganou Thiès.

Hmm? ebe mi yidi don galle o fuf ko no ko wa eh, eh, eh. li mo wala e so akulara wala na te ko wati so a ka li do li do do imison wa li do imison alpular li do reunion alpular wa deglu rek jeurum bul yakamti ya. sama jer baaj mo mo laaj mhm. ne ma lan moy waral lii jotaay bi. waaw ma ko jàmm rek la. dégg nga wolof dégg nga wolof. ngeen wax wolof. waaw silence silence silence léegi nag dem jàppal jàppal geeg bàjj bàjj gii moo tax ma woote réunion 18h bii dégg nga euh, ne. dimbali ma ngir yàlla ak yonent bi ngeen indi paix ci kër gi ah. indi leen paix ki ne meloon na meloon dama bëgg ba ngay dóori say si ci kër gi mm-hmm. jikko ja nga yorul nga yor ko mm-hmm. réunion bi nag maa ko woote woon mm-hmm. yow wàcce sa tànk no eh, ah, wàcc ci suufaay ah bayil bayil comme jàmma ngay woote paix ah. maa woote woon réunion bi li ma bëgg mooy jàmm ak salaam am ci kër gi mm. ñu bokk nday bokk baay njël gi nu xaajoon ñii di togg fii ñii di togg fii ñii di togg fële benn njël fi fini jeex na dama bëgg saa bu nu yeewoo ku nekk joxe loxo ku nekk jox loxo sa moroom nuyu ko te nuy waxtaan tey bokk ndey bokk bàyyi dégg nga xuloo beej raj raj ci kër gi ku nekk di romb sa eh, moroom di siipati yooyu yëpp na jeex ci kër gi dégg bi ci des mooy yow ak yow yéen ñaar surtout yéen ñaar dox gu métti gi jeex na rëppi rëppi gi ngeen nekkee ci kër geeg fitna yeeg yi ngeen di def yooyu yëpp c'est fini dégg nga te ngeen réglé te may nit ñi jàmm ak salaam te bañ fee créer benn problème nanu bokk ndey bokk baay te ngeen toog ci kër gi dégg nga ñu tëj seen gémmiñ waa du ardu may ma rek waaw waaw waaw déedéet ah, déedéet xam nga soo xamee nga may gars wax ku ci nekk yow kese moom moo waaw waaw na ku ci nekk nag di nga wax li la métti ci kër gi ñu rek la ko mu jeex tàkk waaw alhamdulilah dégg nga euh, acca euh, bisimilah kaaw mm-hmm. kàddu gàngoog wuy ma mm-hmm. bu mu gudd nag na gàttal waaw day koy gàttal waaw kay day gàttal ko waaw ndax man looy sa saaga yi fula sa morom mooy sa ko eh, la man jàmm naa waaw man déedéet waxuma loolu jàmmal laa bëgg de déggoo fii ba sax mhm. waaw bu ma ko ginnaaw bi mu leen nuyoo yéen yëpp kenn ku nekk si turam ak santam maa ngi leen di wax baal leen ma ak si koor bi ñuy waaje jug ngel nañu yàlla boole baal amiin amiin amiin waaw waaw su ngeen gisee nag réunion bi maag turam ñoo ko njëkk waxtaan mhm. ndax ay boroom kër bu ñu toogee dañuy wax pour mu rafet mhm. ndax soo gisee kii bi muy jógee maa ko wax gaawal nga jóge daara nga ñëw ndax nga mun a fekkee waxtaan bi. dëgg a ndax kattalu leen ko bu ngeen ko kattaloon. Mhm. <laughs> kon du demee noonu waaye katalu leen. dëgg la. Hmm? Mhm. yow kii dafa neew kii saa yi na kii kii ku fi saaga mu ne ko bu ko saag doon eh, eh, eh, fekkat fa fa la nga koy wax loolu. yow mi yaar fekk magum jëmm di wax xama li muy wax di ko saaga. waaw sa reewaane gi nga reew. gis nga may leen ma rek may leen ma yeggalil gaaw. waaw léegi galam di nga riiti riiti mu ba mu neex la nga dem ne da ngaa def sa congé de maternité dem di daal di maasale ana aayoo nee ki ne nga yow dërëm am ngeen fi gis nga dërëm dama lay wax lu tuut te bariwul ah. mënuñoo nekk ci kër gi sa jabar ji làmmiñam bi di mel ne lañ set lu dagg rek mu wuti leneen dagg lépp dina jeex lii nag du ma ko ko may li passé passé na jàmm la ñuy wax nañ ci waxtaane jàmm waaw yeggalil numbe jël après kii tëj waaw waaw léegi léegi wuy ma eh Fatou Kiné ñun ñoo la tooñ alhamdulilah baal jeex na wax bi jeex na jeex na ah alhamdulilah du noonu jeex na yow ñaaki ñoo la tooñ baal jeex na voilà ma gëm a man li may wax dama koy wax fu mu leer waaw kër gi su fekkee da nga am loo fi bañ kenn ku ne am na lu muy bañ ci kër gi jeex na premier li muy njëkk a bañ mooy day yu lay yi nii day ci luus te kenn ci sotti ndox loolu na nag arrêté

mu mu mu jël mu jël siwo ndox mu yóbbu ko ci duus ba su mu sat ci ndox asi am jëkkër am fal dafa war a jeex ci kër gi jeex eh. nañ bàyyi loolu jeex wat ñi sal eh, jeex ñu ko fi am fii kool lañ jëm kool lañ jëm ci kool lañ jëm oh oh oh, oh oh oh soxla loolu laaj ko seen waa famille ñoo ko xam soxla moo wax ah. am jëkkër am fal kay di ko ma ngi sawee mais li may daanale li may daanale boo ko daanalee xam mooy

na ngeen def nuyu naa leen ñëpp kii kii kii eh, doxatam yu lay ndax alet loolu day yàq kool ñoom bi ñuy wax ah, man waxuma waxoo damaa noppi ku sama kool kon sama wax bu ci kenn dugal sa kàddu jeex na jëlal kër gi man damay woor wala du ma woor yow da ngay woor damay woor d'accord léegi wax nga sa kàddu bu njëkk nga ni njëlli dañ koy def benn maa bañ def ñu ko benn ndax dañuy woor ba ngoon da nga war a lekk maafe wala ceebu jën wala suluxu mbalaax bon bu bon bu ñaaw bi du ma toog ba ngoon di lekk ay laajtir wala ay mat du ma bokk ak ñoom njël tey du ma bokk ak ñoom njël ëllëg. te ñaata tamit lu mu wax ci douche bi. dëgg la boo ko ñëpp respecté. waaw jeex amul jeex na da may bàyyi ma wax loolu mën na nekk war mënta ne mën na ne yow yow yaa piir yàq ko yow la ñaa ko doon wax sànq yow moom yaa fi am jëkkër am far yow yaa fi nekkoon di doxaan yooyu yëpp ñaa ngi wax na leen ko sànq déggu leen ko rek la leen kër gi wala ñun ñu rek ko suñu bopp koor ren moom ñëpp dañuy am jàmm wala ñun ñu gérer ko suñu bopp waaw léegi jeex na amul jeex na mën na nekk wala mënu nekk mën na nekk wala mënu nekk mën na ne ma ko xaaj waaw jeex na léegi d'accord réunion bi léegi bàyyil kii mu wax kii ay moroomu jeegam la fi nekkal waxal ñu nit dañuy waaw Tita pula apul ki wahal. Tita pula apul ki. Kina. Nombor wahal mu nyaki nyaki menit. Kina. Jalal kadu. Ah. Gende. Ya. ya. Siapa kira ya, ya. eh, ah, ah. ah. kita? Ya. Leg ya. Leg setiap minit. Fak lawat sama wak ken. Turum. Dengan ya kani arah sega porak. Ah. Apa yang wakul? Ah. Wahal. Ini mana unyu wah? Wahal. Kita wahal bapak. Wahal. Hei. Hal. Mandi wah. Berdiri. Mikro mikro loyal wahal. ubbi sa gémmiñ nga wax ñun ñu dégg la bokk. yow saaga na de. loolu lu ngeen wax ak seen seen waa kër ngeen ko wax micro la leen daal micro. xam nga man lan moo metti wóor ba ngoon. di dëkk ak ñoo xamante ni. Hmm. ñii dañoo am jëkkër di farantu. Ah! ñii nekk ay dof di dóore. Hmm. dof bi ci gën a bon nag mooy dof bi la dàq fen du sosaate boole ci nag borom kër gi nag na may dégg gis nga kër gi ku nekk la nga am moom ngay toog ñun suñu amee suñu laax caaxaan moom la ñuy toog suñu amee suñu leneen moom la ñuy toog lépp nag tuuru yoo dafa mel ne famille bi daf leen a ragal jàmm daal la la woote buñ ma wooyee ci jàmm ah dag may may ma wax maa jël ko parole dag may may ma wax gis nga jàmm ji ngeen bëgg ci yéen lay njëkkee yéen ñi ngeen xam ne yéen ay famille mënu leen ko nag ñu nekkee nañu nekkoon ba mu ngi da nga may famille dof da nga may famille dof wax ngeen ba pare da ngeen may la ma tax may ay wax famille dof sa borom kër gi bu munul takk tubay man mii di jigéen maay takk ah, tubay takk ah, waaw waaw waaw waaw ko matul góor du kii yéen 18 personnes ngeen ñun trois rek lañu yaa yaa nak sa nak sa daa oyof da nga koy benn rek sor da oyof fii la ko fekk fii la koy bàyyi ki nga xamante ni doyalul góor am jëkkër di wuti faat waaw waaw

boo gis rek tudd ko kii ñaar la yow benn la. boo ko dégg man maa ko man maa ko mën a seede man. kooku 18 la yor ak ñaari sip. ak ñaari sip moom sip lay yor boo ko dégg moom sip lay yor boo ko dégg moom sip lay yor kay boo ko dégg. kaw may ma xam nga li may waxaat ci ay sos ay dof yu mën a sos la kii moom ay dof la yor saako bi léegi waxee kàddoom wax dof. waaw may la kay dof yéen ay dof yéen dof yéen yéen dof maa ko wax doom maa ko wax. ku ñëw ci moom.